maa ngi fii si Paris yi ñu ngi koy dund ñun xam nañu réalité yi xam nañ li fi xew carrément il faut nag porteur de voix yi comme ñun ñu wax xam ni lii benn feebar la boo xamante ni c'est grave ni muy ni ñu koy wàllante dafa gaaw donc nag il faut ñu raxas suñuy loxo bàyyi nuyoo bi bàyyi akolaat yi ku nekk toog sa kër loolu mooy dimbale médecin yi alors s'il vous plaît Restez chez vous.